salaamaaleykum neen def ak coono mbaa ngeen yabu amati gen jamma naka sen dugu da naka ngon may tulen macron nak patriote deg na re da beug macron torop may tulen macron way may tulen macron neen dama ak lay léegi ñun dañuy fayé ko suñuy bor eh, bàyyi Amadou Ba naa def ak coono mbaa ngeen la mbàppul mbaa ngeen yabu la ba am nga jàmm ah Baye Amadou ba ana def ak coono mbaa ngeen yabu la ah, ñun de dañoo laajoon suñu Baye Mame Mbaye Niang sunu milliards yi woon Pronac nag ma Prono Pronac waaw mu ne ah milliards yi daal wax dëgg yàlla bu amee kun koy laaj nan ko laaj Baye Amadou Ba ah waaw Baye Amadou Ba suñu podaloo bokk <laughs> Baye mbay Niang de Baye Mame Mbaye Niang nu boole geew Amadou Ba na nga def ak nag ba ba am nga jàmm naka euh, parrainage yi mbaa yaa ngi góorgóorlu mbaa am nga sang foo am nga sang ah waaw rek tey maa la dégg ci yoonu Tiwaawan wi ah waaye la ma fa romb de ah waaye Amadou Ba yow mi sëy fi dayatul xel de waaye Amadou Ba yow nee naa del tànt lu yem da xër xaw ma yaay woote naan gaa yi tàntal ma waaye xër nga de àllub Tiwaawan bii jóge Thiès jëm Mboro ko tay ba jaay tay ba mbay ndóomóor ah Thialé na ma bu baax ma man de man de man nak mana ma moy manam wa waa man romu na mboora tay wa mboore fuñ jëlé ay kaar <laughs> may amadou ba xawma xawma ay guinée ko don téru mboro xawma ay malien rek ay bis la jor de man de fan laq bis ya wa tax ñu laq kaar yi ah bàyyi man naa dem ak bala ma ñëw ci bor yi ah ba amadou ba yow baay fo jëm ñu leel la ay nit nak ñu jitu la ah lool doxul way nit ñi ne affaire ne naturel la simplicité est de l'art de loolu da la tubaab bi wax waye la simplicité est de politique de <laughs> waya forba Ba benn équipe bi la yor fu mu jëm ñoko jitu xaar ko dekk ba duñ ngeen de ben équipe bi la yor fu mu jëm ñoy genn xaar ko man musu mosuma fay gis ay bis yu téru politicien mosu fay am neen nah, daf ak coono nak ba kenn yabu leen am ngeen jàmm wa léegi ba Amadou Ba ah bàyyi mam bay ñaar mo ñu boole won bàyyi mam bay ñaar ñu dañ ko doon laaj sun milliards yi woon ak rek xaw ma pronak xaw ma léegi mënuñu wax dëgg yàlla milliards yooyu daal bu nu amee lañ ciy laaj nañ ko laaj kii di amadou ba waaw naa def ak coono ba fu milliards yi toll ah ah ba bàyyi ma bay ñaa joxoñ na la baaraam de nee na daal milliards yi bu ko ci kenn laaj lenn ndax zéro woon poste ba kon na ko ko laaj kii nga xamante ni moo di ministre ba yow mi yoroon wàllum milliards yi fu mu ne naka naka neex may ah sunu póodaloo bopp comme mënuñu koo gis comme ñun milliards yi moom dégg rek lañ ci am nee ndaw kewno nag man de sénégal milliards yi ba fii dégg waa milliards xanaa léegi ma fukki dara ma yem te buñ waxee ñun réew mi daa bekkoor amul dara te man ay milliards rek lay dégg milliards ci ngaami amadou ba milliards ci ngaami mambay ñaa milliards ci mbay Macky Sall milliards ci ngor si num tudd borom bobu tuut bi waaye bay Antoine jom naa def ak coono waaye kooku laa gëj a gis nag dégg naa dem naa remplacer léegi sa place sàpp na bee ko yor mooy waa Corée du Nord rek neen dafa coono waaw loolu de xéwal la sapone bi dégg naa mooy war sa place waaw yow ñu jox la wàllum lan zirgon bi astafurlah maanaam zirgon ñu jox la wàllum lan euh, ministre de la lan pétrole yow ñu jox la ministre de la pétrole ah baax na de ministre de la pétrole waaye kaas doo ko ci natt de. kaasu pétrole eh, eh. ah, eh, do ko ci guux de bala nga kas, guux kaas bala nga ci produire kaas election yi ñëw ñu jëlee bu soobee yàlla da ngeen def ak coono nag ah waa bàyyi nu bay antoine jom do la xam nan la bay Amadou Ba bi de digënté bay Amadou Ba ak mam bay ñaar gitu, ak la ngi jëlé ndax mam bay ñaar suñu milliard yoon product lan doon laaj mais dañoo mujj booleeg yeen daal ni ngeen def lu leen laaj ak ngeen wut ku ñu wër ah bay mam nya, ñaar yow Amadou Ba nga ñu booleel ah Amadou Ba ana milliard yi def ak du ngay campagne ye amadou ba mi mbasul milliard la duggee all bi te ta ami nit bay amadou ba fo jëm yal na fa yëlu yàlla jublu bay amadou ba sonu nga billahi wallahi taala bay amadou ba bay amadou ba ma ñi xam na nag war nga wul ku frotteur de frotteur frotteur ko xamante ne bo tourner ba dik dalay tàllal rek mën na lu yorop compresseur diko jaar la sa digg ginaaw gi gitu, di ko kii bay amadou ah, ba sonu nga nak li ngay tourner ta amoy nit ah xel de bu doon faatu man la sa xel mi faatu na bu yàgg sa xel mi sonn na da ngaa xalaat ba nëroo nit bay Amadou baa nga jeex tàkk maam bay ñaa dikk safati koy milliards rek di ko naan naan ñu laaj leen milliards yi bay Amadou ba naa def ak coono boppul la jéeri mbaam nga jàmm ah waa suñ póodaloo rek heure bu yembee rek baax na nag heure bu yembee rek baax na parrainage bi fu mu toll am nga saa am yëggagul saa <laughs> Sénégal nag jaxasoo na nag neen def ak coono ah waa sunu nijaay de mi ngi ci yoon ñu ngi ñëw de Baye Ousmane Sonko ah waaw Baye Ousmane Sonko de mi ngi ñëw rek faral laayam laayam nag loxo doje pale ren de eh, eh, déwén de bu soobee yàlla Macky Sall du naane fon pale moom dañ lay relevé nag ah poste bu ne nag am na relève Baye Macky Sall déwén baa ñu naane pale fon de nag ngir yàlla yonent bi Baye Ousmane Sonko raxas nay kaasam ak guddoom ah neen naane fon pale incha allah 2024 naa def ak coono nag di nga naan fonde pare doy na Baye Macky Sall bàyyi na ñu relevé la nag naan fa fonde nag donte ko ñetti fan sax naa def ak coono ah waa jot na nag sunuy parrainage wuyu ma jot na de fiis bi fu mu toll nee def ak coono dama leen fan yi moom fàttali la nee leen def ak coono. Baye Amadou Ba ah waaw milliards yi bu baay fàtte Baye Mame Mbaye Niang boole nañu ak yow de waa milliards yi sax boo ci mënee comp 200 millions nga joxal joxal ñu ko Baye Mame Mbaye Niang ndax daa moom. procureur da ko doon nax waaye da koo jàppe dëgg nee na ko war deux cent millions ah na ngeen def ak mbaa kenn yebu ah